tubaarkàlla borom jàmm gën. wala wala wala wala ah. mbëru tarkinaay. a <laughs> ah, Pape Ndoye lii rek maa ngi nii Pape Ndoye waaw Pape Ndoye NCB ñaari tali Grand Dakar xam nga cité ASECNA xam nga ñoom ñëpp waaw Pape Ndoye bu àdduna yëpp daal. bi nga daanee ba léegi gisuñu la tey ñu gisee ci open press ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye 2 seen diggante yi ñaar lan la ak combat bi mu jëm diggante moom Cobra nan ngeen fas yéene ñëwee ci làmb waaw Serigne Ndiaye dafa nekk nit ku baax waaw ñu bokk égri su ñu amee mu takk ci lépp waaw def si lépp wax dëgg kon tamit buñ ko defalee nii nii war waaw di ko ñaanal yàlla may ko ndam combat bi mu waaw ñu ko siy ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla may ndam ci kaw. nga adversaire bi muy bëre Cobra. xam naa ko waa champion la waa champion la ndaanaan la waaw champion la waaye ñu ngi ñaan yàlla may ndam ci kawam waaw yàlla ah? la ñu xeex lu mu laaj rek ñu def ko. waaw pare nañ pour lépp incha allah. ah dugal nga benn de. waaw mbokk taalibe nga. waaw daa rëcc. ci loolu <laughs> sant yàlla alhamdulilah. waaw ñu ngi sant yàlla bu ci open press sa frère sa xarit. muy Serigne Ndiaye do tey mën nañ la laaj lan nga fi def. waaw comme ni ko waxee rek sunu frère moo xewle. ku ne Fass na Rëbës na Mérina Falas Colobane Gueule Tapée lépp benn la quoi. Hmm. oui ñu nekk ay frère xam nga débuté doo nekkoon écurie Fass léegi nekk écurie Rëbës mais benn la quoi. du bokk ndey bokk baay ñaanal yàlla sudal ko may ko ndam sa benn préparation kese bu ñoomee combat ñu ñooy bokk préparation ñoom bu ñoomee combat ñu ñooy bokk préparation kon ay frère lañ daal dañuy ñaan yàlla may ñu rek siyaar nañ la Baara Ndiaye. delloo naa leen ziar. ñu ngi sant yàlla baax alhamdulilah. tey nga ñëw ci open press ki nga xamante ne mooy euh, Serigne <laughs> mu war a laaleeg ndaanaan di Cobra bu Pikine. nan ngeen waajee ak lan ngeen fas yéene indi ci làmb. waaw li ñu waajee combat bi mooy comme ni ñu waajee yeneen combat yi rek. préparation bu intense. préparation bu extraordinaire. pré physiquement. moralement mentalement. mystiquement. attention Guèye bu baax a baax. donc mën na si dernier réglage yi. waaye def open press tey so normal que ñun def déplacement ak dérangement ñëw fekk si ko parce que tamit comme nekkoon entraînement bi bu def a mhm. am li mu entraîné ci mhm. combat bi lan ngeen ci liggéey li na Serigne ko wax li muy bëree Cobra doful ko xam na li koy xaar donc kon li l'essentiel comme mooy moom xam na li koy xaar gaa yëpp a ngi topp ci ginnaawam di xaar victoire incha allahu taala donc di ko ñaan yàlla rek yàlla suturaal ko may ko ko lu sedd guy gaaw lool ñaar yëpp Serigne Ndiaye mënul xeex non lool loolu loolu looy wax rek nit bala nga xam ne mën naa xeex mënul xeex ngeen jàkkaarloo xeex yéen ñaar mbëru simple la non mbëru simple ko simple eh, simple bi mu nekk sax daa ko cee bëri non Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye a nekk mbëru simple Serigne Ndiaye booy tawul la Médina fi la dëkk donc kon xam na ni moom am na yoo xam ne moom am loo xam ni moom dafa jëna naa mënul xeex même bu munul xeex nekk nañu mën a xeex. waaw bu xeex nekk nañu mën a xeex. waaw yàgg dina a xeex. waaw loolu lay problème bi moom bu munul xeex tamit nekk na ñoo xam ne ne xeex jaaxalul bu baax a baax tey saa bi am na si yaakaar baax ci côté xeex bi. waaw bu fekkee loolu la yaakaar moom tey mu lal gërëm doon xam ne gars yi lu leer nañu. lii eh, génn yow la laa ilaaha illallaah lii génn walla jaan ba ñëw na jaan bi ñëw na jaan bi ñëw na hee eh. laa ilaaha illallaah jaan ba ñëw na jaan ba ñëw na jaan ba ñëw na lii jaanu ñaan góor wala yeew la wala lu mu doon ah, ila ay adama dawal adama dawal dawal adama dawal la ilaha lu mu doon eh lamba gi awaay Medina war a seen bopp ci lamb lamba gi waaye Medina ngay wane seen bopp xale yi jug nañ waaye xoolal yeew bi li muy def ci loos bi day wër teewaat na ko ndeysaan xoolal yeew bi yeew bi day wëral boppam cey lam lépp tegtal la ndeysaan faas nañ baax a baax di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen fàttali li ñu fi indi ñu ngi fii ci open press Serigne Ndiaye numéro 2. mu war a laale xale bi nga xamante ne ndaanaan la ci làmb kenn du ko présenté ci làmb muy Cobra Cobra di doomu pikin ki ñu woo nag di Jax jàmbaar Wrestling euh, Academy déedéet promoteur wala production mu nekk koo xamante ne vraiment journée bi mu ñu boole. dafa nekk journée boo xamante ne ñaari xale lañ ku ci nekk am lu mu bëgg a wane ci làmb ku ci nekk am tolluwaay bi nga xamante ni war na koo wane ci làmb Serigne Ndiaye ñu ñëw tey Medina gis say mbok say njagañaale say àndandoo say xarit ñëpp ñëw ànd ak yow yaa ngi doon waajal beneen adversaire jóge fa adversaire boobu yàqu nga amaat beneen adversaire noo waajee bis bi ak lan nga fas yéene wax sa adversaire bi nga xam ne moom nga fas yéene laan muy Cobra booy Pikine bi ndax naan la de. waaw mais balaa dara dañuy sant yàlla bu baax. julli si Yonent bi sant suma ñaar waajur. du nuyu ñu fi teew ñëpp. di nuyu sama famille bu baax sama papa suma yaay. suma grand frère ak suma jigéen xam maa ngi sant ñëpp. di nuyu waa Medina gi ma juddoo yoroo fi màggee fi. dina ñaanal jàmm ama seen parce que tey su ma amee gis nga nii lay mel dañ may taxaw fu ne buñ dara loo métti di nuyu suma dëkk waa Ndiaffate Séeréer Ndiaffate Escale Ndiaffate Bayoul ak Ndiaffate Socé bu baax a baax a baax a baax Zal Bada Ousseynou xam nga Mame Samba xam nga Pawa Diawara Kabandosi xam nga maa ngi nuyu ñëpp voilà xam nga di sant sama gars yi di leen ñaanal jàmm salaam quoi. di nuyu nag ñi nga xamante ne nii ñooy marieurs yi waa ndar yi waa golf xam nga waa cinquante di nuyu sama mbokk séeréer baax a baax di nuy surtout waa maintenant nag xam nga di ma juddoo yoroo fi màggee fi maa ngi sant bu baax di leen nuyu di wàccaay bi da nga doon waajaay ci ci Sokocim sa diggante ak Sokocim taxaw ba ñëpp doon ko xaar combat boobu mujjee yàqu nga jël Cobra lan moo la dugal ci Cobra ak sa diggante Cobra lan nga ci fas yéene wane. non Cobra li may wax seen suuf rek. dama koy sant gërëm ko dama koy sant maanaam adversaire jafe woon na ma trop. Hmm. moom moom courage yu am njàmbaaru jël ma dama koy sant ba di gërëm. mais moom xam na ne xel ne ba bi génn suñu diggante man damay attaqué ko ñu gagné comme d'habitude rek. Ah, waaw waaw waaw waaw problème. la may la may Cobra. géant. njool mën a bëre. bari doole mën a xeex lamba xale koy def. lamba xale koy def. Cobra du xale. xaw ma de mais lamba ay supporter luñ teel a ñëw esat maa leen jox añ ñu añ ma jox lu sedd ñu naan su ko paree ma daal leen jël bu rëy jox leen lu sedd naa ñëw ñu incha allah non dama am benn Serigne Ndiaye bu may gis buy dégager benn confiance confiance bi lan la dañ ko dee wala waa wéeti naa ñoo la ko boote. man chaque jour nii laa mel jour nii laa mel di nuyu suma baax Père Jo Joseph Diouf xam nga caajaay di ko nuyu baax a baax di yi Père Ali xam nga depuis la France maa ngi koy nuyu baax a baax daal nuyu suma coach yi baax parce que lii yëpp ñoom la xam nga liggéey xam liggéey bu am solo du nuyu sama mbokku mbëri nag ñoom dañoo nekk phase bi jàppale ku si mel ni général ñoom Baara Ndiaye di ak sama booy yëpp maa ngi sant bu baax ba léegi ñu ngi may sonn si man di ma jàppale suba mu guddee bëccëg ñu gis ni combat bi fi mu toll nii dafa mel ni Serigne Ndiaye 2 bi mu ñëwee tey gis nañ mu indi yeew gis nañ mu indi mystique mu mel ni dafa favoriser mystique bi te diggante moom Cobra Cobra mystique ko koy daal man lamb laay def face à caméra. man lamb laay def lamb ama lamb. laay def damay entraîné macha allah am naa ay mbok yu may taxaw macha bu baax a baax a baax baax lépp lu lamb laaj da def bu jëree sama bakkan mu koy teele bu jëree ndoxu bana mii ma teele ko sax lamb. <laughs> lamb ji ñu bari dañu ne Cobra ndaanaan la ci wàllu bëri mais Serigne Ndiaye kenn du dem mu des sa combat bi wees da ngaa dóor mu daam combat bi lan lañ mën a séntu sa diggante Cobra. Cobra champion la. wax sa waxu mbaay du yàq sa wax dara. da la man am na may baab ci moom liggéey doomu. moom champion la mbër la macha allah. waaye comme li ma wax rek moom naa bi sifle taxaw du daw nag gaynde xam naa du daw mais taxaw nga jëflante lamb lamb ji dafa gëj am combat mag yu neex nañ taxaw ay poids lañ bëre ba mu neex xeex mu neex ma daal ko jëlee bëri ak suñu tubaab. xeex ñeme waaye loolu bu loolu bi dina fanaan ñun ay booy Mbinaan dañuy xeex ba gannaaw suba ragal ju dara. xeex. booy ñun la ñu rafetlu màggee boo taxawee nag booy di xeex yow léegi léegi. waaw. Ah. bëre. bëre tamit. kenn ko jàngal nañu a boppam nag. affaire bi dañ ko foowee da ci ay coono yu muy nekk. xam nga mu jaral ñu lu ne. est ce que nga xam ne donc amoon nañu tam mooy loolu quoi. ku la nga Cobra dañu gis ni depuis combat bi bi mu taxawee ba léegi mu ngi ci ruqam xamuñu ci lu mu nekk presse bi sax mënuñu cee jot mu mel ni mu ngi ci préparation bu sérieux mu ngi ci concentration bu sérieux boo ko doon wax en face fi mu toll nii mu ngi jàkkaarloo yow lan nga koy wax. moom amul ma ko wax moom concerné. man am nga loo ko wax nga combat moo leen. moom amul ma ko wax la concerné. mu làqatu ak mu feeñ moom la concerné man dama am ak promoteur bi contrat. contrat mooy bu ma boobu promoteur bi woowee ne ma pare sangam dina fa ñëw du ma def lu na ko waaw. rempli sama contrat parce que làmb ji bu ñu tëggee ñaari mbër pour làmb jëm empereur foog ñaari mbër yi génn di wax làmb jëm empereur làmb ji mun dox mu neex parce que fi ñu nii na làqatu fu ko neex jour gi si kàttanu yàlla dina si ba tey fa lay taxaw yéen waa xam ngeen Pikine a jàmmaarloo ci ay bis te daawu leen ca neex le non loolu du derbi xam nga derbi mooy lan ay combat yu choc combat met combat choc loolu mooy derbi Ah. mais yii ay réveil musculaire la ñii du sumay adversaire sa waay. déggoo ma de. comprendre am na fu jaar de. a fu mu mënti jaar si àdduna man làmb ah. dama soxla. je m'entraîne matin midi soir. xaw ma lu may bàyyi xel ci Cobra wala kii si soir. bal bi génn suñu digale man damay doon si koom attaqué ko koñe ko gañe ko incha rabi wala dégg ko. mais ni ma la déggee ngay wax boo ko yóbbaalee seen làmb ja ba doo am lu la métti. chaque combat nii laay waxee incha allah chaque combat nii laay bëree si kàttu parce que lu ma liggéey la lu ma gëm la. lu ma ànd ak samay mbokk la làmb xale kay def te làmb gi dama ko fonk bu baax a baax a baax te incha bu buñ duggee estar ba suñu meku day xam ne Serigne Ndiaye fonk na làmb ji moom taxul sax mooy liggéey billaay walaay taxul sax mooy sonn ci làmb entraînement yi ñaata séance nga doon entraîné par jour ak combat ñaata ñaa yan dëkk nga ci dem ñaata nga ci def ci mystique boo ko doon xayma ci xaalis man làmb laay def maay sant samay mbokk bu baax a baax a baax ama seen suma ma la yaay gërëm di sant waa Gambie bu baax a baax a baax xam nga suma papa Riyad Aziz maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant suma papa Cheikh Soumboulou waa Kolda yi nga waa Casamance yi sama mbokk waa Caalaan waa Caalaan waa Ñoojoor xam nga Baasul Basaar waa Njaafari nag maa ngi nuyu bu baax waa Njaafari di leen sant bu baax a baax a baax gis naa taxawaay si combat bi lancé benn message nag Bamba Fall mooy meeru maintenant gis nga mbooloo mi lu bëri yëpp moom la ñuy moo war wàccee mbooloo mi gars yi dañuy ay billets soxla ay car pour dugg stade dem supporter moom moom mooy gars yi dem dañuy dem uti ndam te yaakaar naa meeru Médina dara ñor ko lu ndam moo ko ñor ñun dañuy dem reyante pour indi ndam Médina yaakaar nañ indi ay ndam Médina na na nañu na saa dama wax saa ah nañu nañu dimbali te yàlla tax dafa ñu ay bolok ak ay billets jëmmi Serigne Touba mu dem Cheikh Ba ñu koy woo si combat bi am nga suñu bopp Sidi Samb macha allah wa wa wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla nag boole ñu si jàpp bu baax a baax a baax a baax gaay gaay gaay gaay gaay ñaana dal rek xool ñaana ba mu baal la maire ba mu baal samay combat da si war a jàpp parce samay supporter xam ne jàpp na si à quatre cent pour cent ñëw na wala ñëwagul ñëwagul ba léegi samay combat li mu si jàppee c'est pas normal du tout comprends nga bi nekk ba suñu quatrième grand te Médina lañ juddoo fi lañ yoroo fi lañ màggee am ay titre foncier am lépp donc mbër Médina buy génn fii di bëri ji du di ndam da nga koy jàppale mu am ndam rafetul man mbër mu dëkk Médina juddoo Médina di jël sax boobu ay bologu ticket naagi suul dañ jàpp baax a baax a baax a di nuyu nag ki nga xam mooy Cheikh Ba di ko sant bu di ko ñaanal jàmm su mbaab Sidi Sam maa ngi koy woo Seydou di nuyu suma mari yori nag baaba yi bu baax a baax a a ñu defal ko wal. man mafia yooyu mafia bandi. mafia bandi xale yu ndaw yi. <laughs> lii xam nga lii sama kër baax di la di la benn message nag xam nga boobu tam ñu si bëgg wax mais mu ngi si wax xam nga Bébé Diène suñu suñu suñu la yaa ngi comprendre boobu léegi ay at mu nekk si ay jafe-jafe da nga ko parce que Wassare lamb ji gagne-pain la malgré def deful heure ñu ne ngay ñaanal jàmm mu ñaanal jàmm salaam fi mu nekk nii mu génn fa ñu assurer parce que maintenant soxla na ko xam nga gars yi soxla na ko si bu baax mu génn ñu si jàmm ak salaam maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di leen gërëm di nuyu waa ko nag maa ngi nuyu baax waa maintenant bu baax a baax a baax kii nag wax dëgg yàlla kii Jabel Thioune ñi ñi ñi gaañ sama ginnaaw bëri bu may gaañ dafa fekk ma nekk voyage ma nekk Gambie bu baax a baax a baax a baax ak lépp moo ko doon def suma grand naati bu koy jaal bu baax képp gaañ sama ginnaaw maa yi maa ngi jàll baax sama kilifa boobu ñaan mu ko kaay waa guddeem yi nag waa guddeem maa ngi nuyu bu baax a baax waa sàkku seen ñaan baax di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax yaa ngi nuyu rendez-vous rendez-vous dimanche le treize dimanche door mu wàcc